mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam dangaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set kon nag mu ngi noonu képp ku bëgg ci ngóor a kàttan xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi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 jigéenu jàmbaar yooyu nga xamante ne ñoo fa nekk ak góor yi nekk ay médecin yu baax ñooñu bokkuñoo ak médecin yi nga xamante ne dañuy wax ne que da ngay ñëw ñu lay gëdd ak di la wax lu la metti ñoom da ngay ñëw ñu daal di lay dalal accueillir la toppatoo la yow ba da ngay fàtte rek sa malade may remercier waa urgence 24 bu sali di leen wax ne continuer leen comme sa nit da nga koy dalal daal di koy laaj la koy metti waaye di ko toppatoo bu baax a baax te démb ci loolu ngeen dox ma leen di remercier ñeen yéen ñëpp sama ay chroniqueur foofu laa koy commencer tey nag damay wax ci jigéen ñi nga xamante ne dañu bëgg lu yomb comme sama ay chroniqueur du gudd dafay gàtt jigéen ñi nga xamante ne dañu bëgg lu yomb balaa ñuy dem restaurant dañuy xaar góor bu leen yóbbu restaurant paye leen bàyyi leen loolu nit da ngay nekk jigéen bu autonome nekk jigéen bu dynamique nekk jigéen boo xamante ne foo toll war ngay yor xaalis pour lépp lu la munti dal ci àddina rek nga daal di génnee ci sa poche rek daal di koy fajal sa bopp waaye jigéenu Sénégal am na ñoo xamante ne dañu bëgg lu yomb balaa ñoo dem restaurant dañuy xaar ku leen yóbbu te mun ñu yor téléphone buy jar cinq cent mille wala trois cent mille di xaar góor gu leen yóbbu restaurant wala nga jël ci sa bopp teg ci loo xamante ne prix lañ koy woowee muy jar ay deux cent mille te yow iññaane ngaa dem restaurant sax commandé lekk facture ba ñëw nga fay ko jigéen ñi bàyyi leen bëgg lu yomb dee leen dem restaurant jël seen responsabilité bopp parfois sax góor da lay invité ngeen ñëw lekk ba pare war a participer ci facture bi sax di xaar góor bi fayal la jigéenu Sénégal bàyyi leen bëgg lu yomb nekk leen jigéen bu autonome fu ngeen toll fu ngeen toll rek de leen yor xaalis ci seen pochette nekk nit koo xamante ne yow doo soxla daraay góor nekk nit bu dynamique humble nekk nit boo xamante ne da ngay autonome loo bëgg a fajal sa bopp faj ko te ngeen commencé di économiser économiser nag moo lay may saa yoo demee ba jaaxle rek nga génnee ci sa poche rek daal di fayal sa bopp waaye am na ñoo xamante ne tey bu ñu feebaree sax dañuy wut ku leen di ketal pour ñu mën a faju nañu jëlee loolu ci Sénégal jigéen ñi ngeen bàyyi di yàq yor téléphone bu cher te yow munoo fajal sa bopp benn gàcce boo feebaree wilibande sa bopp ñëpp xam ne da nga feebar parce que lan yaa ngi demande ku la faj wala ku la dimbali wala ku la aidé bàyyi leen bëgg lu yomb les femmes sénégalaises yenn femmes sénégalaises yi nga xamante parce que am na ñoo xam ne meluñu noonu mais am na femmes sénégalaises yoo xamante ne dañu bëgg lu yomb duñu dem restaurant dañuy xaar góor yóbbu leen fayal leen moo tax loo ci gis ñu di leen violer ak di leen tëddee ak di leen def naka sudul noonu buñ jugee naan ah, kii dañ ma violé nangam sàngam seen bëgg yomb rek moo tax góor ñi di jaar ci seen kaw di jàll nit da ngay diñ ale nangam sàngam seen bëgg lu yomb rek moo tax góor ñi di jaar ci seen kaw di jàll nit da ngay diñ am personnalité am fulla ak fayda ci sa bopp di liggéey di denc sa xaalis ba loo soxla rek nga daal di koy mën a fajal sa bopp ah tey samay chroniqueur du gudd dafay gaat waaye ci loolu laa doon wax I love you so much thank